waaw jërëjëf laaj bi am na solo donc tey ONAS dafa dafa dajale woon mboolem euh, ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu assainissement autonome bu ñu ne assainissement autonome nag mooy euh, euh, ndox mi ñuy jëfandikoo ci suñu biir kër yi te muy dem ci foos yi ku ne xam na ni assainissement dafa bëri ay façon am na assainissement boo xam ni mooy mooy bi jaar ci réseau yi ñu koy gis bis bu ne boobu boobu lañ gën a xam waaye bu ñu fàtte ni euh, suñu foos yi ne ci biir kër gi itam nga xam ni ndox yooyu ci lay jógee euh, assainissement la bu am solo ñu tuddee ko assainissement autonome te moom sax yaakaar naa ni moo gën a soxal askan wi ndax lu ëpp ci askan wi ay foos la ñu war seen biir kër ONAS nag jàpp ne ñooñu kenn war leen a bàyyi noonu war nañu xalaat xalaat bu am solo fexe ba foos yooyu ñu met ko on normes maanaam ñu liggéey ko liggéey bu mucc ayib nga xam ni du am ay du indi ay jafe ndax force boo ko liggéeyul ni nga ko war liggéeyee mën na indi ay feebar mën na indi ay jàngoro yoo xam ne mën na mën na indi ay ay coono d'autant plus que am na ay quartiers yoo xam ni ay dëkk yoo xam ni nappe bi ci suuf maanaam ndox mi ñuy naan dafa dafa jege lool te bu jaxasoon ndoxu foos yi mën naa indi problème donc benn ci études yi mooy fexe ba foos yooyu ñu mettre ko aux norme ba nga xam ni képp kuy tabax sa foos da nga am sécurité beneen pàcc bi nga xam ne tam moo tax a jóg étude bi mooy ku ne xam na ni assainissement autonome dafay dafay soxal ñu bëree bari boo xoolee ñu yor camion vidange ñi nga xam ni dañoo am ci la ñuy ci la ñuy liggéey di ci daan seen doole ay chauffeur nekk ci euh, am ay jafe-jafe war nañ leen a jël en charge xool chaine boobu mooy la chaine de transporteurs ak camionneurs yi nan lañ koy gérer nan la état bi di ci dugal loxoom. fu ne xam na ne am na ay projet yu am importance yoo xam ne président de la République Macky Sall teg na ko ci réew mi ngir indi ay financement jënd ay camions. Euh, jàppale ci vidanger yi ñu mën a def seen liggéey ni mu waree étude bi dana joxe ay jeexital ci ci wàll woowu. beneen wàll wi itam mooy ku ne xam nañ itam ONAS ndox mi muy produire maanaam ndox mi jógee ci réseau yi euh, ñaaree dañ koy sànni biir géej wala ñu koy tuur mu ci anam boo xam ne bii mën na indi ay jafe-jafe ci at yi génn am na ay plan yu ñu teg ngir fexe ndox moomu ñu mën koo jëfandikoo ni mu waree maanaam li ñuy wax eau épurée loolu tam dafa laaj programme. boo xam ni danañu fexe ci biir waxtaan wi xool naka lañu koy organiser ba ndox moom di jóge ci kër yi di jóge ci ci réseau bi ñu mën koo utiliser mën koo jëfandikoo ci tool yi mën koo jëfandikoo ci stade de football yi mën koo jëfandikoo ci espace vert yi mën koo jëfandikoo ci lu baree baree baree bëri rawatina engrais bi nga xam ni tam mën na cee génn mën a jàppale mën a jàppale mbay mi kon loolu li tekki mooy lël bi ñu dajale fii tey lël boo am solo la donc maa ngi sant partenaires yëpp ñu nga xam ne ñoo ñëw àndandoo ak yéen bëgguma bëgguma leen tudd waaye xam nañ seen bopp ah di sant aussi le conseil technique du ministre de l'eau et de l'assainissement nga xam ne moo fi teewal ministre mbay Mbaye am di ko sant bu baax di ñaan yàlla rek étude bi ñuy def mu mën a indi ay xalaat yu am solo yoo xam ni bu ñu ko bu ñu ko jébbalee kilifa yi am nañ yaakaar ni bu ñu ci joxee ndigal danañ mën a tàmbali liggéey bi mu doon jëriñu askan wi waaw euh, li ñuy wax assainissement autonome moom ci Sénégal yëpp la la dugg am na dëkk yoo xam ni xëy na amuñu ay station de boue de vidange waaye barewuñu loolu tam bokk na ci étude bi ñuy def ndax ci samay biir réflexion yi mu am ak partenaires yi xamal naa leen ni sama yitte ak sama yéene mooy euh, bu ñu weesoo dëkk yi nga xam nañu ay station yu ñuy yu ñuy tuur dama jàpp ni chef lieu de région bu ne war na ko mën a am tey ci Sénégal ci quatorze euh, régions yi yaakaar naa ne juróom-ñeent yi am nañ station de bouteillage cinq yi ci des ñu ngi liggéey ak suñu ay partenaires danañ ko fa defar balaa yàgg incha allah am nañu partenariat yoo xam ñu ngi koy signé ak ay bailleurs de fonds euh, ñi ngi ci euh, ñu ngi ci euh, ñi ngi ciy liggéey liggéey bu am solo. beneen vole bi itam mooy kër yi nga xam ni këru diine yi ci biir Sénégal nga xam ni dañuy dañuy soxla loolu jë dañ koy soxla lool. te ñu xam ni bu màggal amee wala gàmmu am dañuy am yitte ci wàllu ci wàllu boue de vidange. étude bi tam danañu defal ay proposition bu ko defee ñu proposer kilifa yi dëkku diine bu ne ci Sénégal buy def cérémonie ñu dajale mbooloo ay juit di fa ñëw ngir jàmm si yàlla ñu fexe defar fa ay station de boue de loolu booy nañ ko ci ci projet yi donc étude bu yaatu lay doon waaye ni ma ko waxee lu ñu ci noppi rek danañ ko jébal kilifa yi ñoom ñoo koy saytu validé ko décidé ko ñu ci dogal rek ñun ñu appliqué ko incha allah bu neexee maa ngi leen sant leen gërëm jërë ngeen